Fadilou Keita non nga ne euh, non le discours nga ne nga ne. Euh, euh, mag Ousmane Sonko. bi mu joxee xibaar yi ba pare. waaw Ousmane Sonko lan la wax moom nga ne. lan la wax. ci wàllu xaalis bu ñu détourné. Mm-hmm. fii ci réew mi. ci wàllu budget bi deux mille euh, vingt deux mille euh, mille vingt et ba deux mille vingt quatre. Mhm. entre autres euh, am na benn somme boo xamante ni. six cent dama bëggoon rek askan voilà milliards six cent milliards la. dama loo xamante ni mille huit cent et quelques milliards. dama bëggoon mu leer nga xamante ni voilà. dama bëggoon mu leer nga ne kan moo ko wax. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Mhm. kan mooy Ousmane Sonko. mooy premier ministre. Ousmane Sonko mooy le politicien bi jiite le parti Pastef. yi nga xamante ne nii ñëpp xam nañ leen ci manipulation ñëpp xam nañ leen ci sos ci wax li dul dëgg. ah bon Sonko mooy le politicien bi ne woon sénégalais yi. Mm. te mu koy def tàmmal ñu ko à chaque fois bu soxlaa baatu askan bi. Mm. à chaque fois bu bëggee charmer askan bi à chaque fois bu bëggee attirer euh, attention sénégalais yi. Mm-hmm. mu wax leen wax yoo xamante nii dañuy gis ne. en fin de compte du dëgg kooku mooy Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko moo ne woon Sénégalais mhm. installé na ay pipeline ci biir ndox mi géej gi. Mhm. ñu ngi manque pétrole Sénégal yi di ko yóbbu di ko jaay kooku mooy Ousmane Sonko. mooy ki ne woon ci législative yi passé yi vous les euh, majorité à l'Assemblée. bu ngeen ko joxee Macky Sall dafay daganal. sëyu góor jigéen fii ci biir Sénégal kooku mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ne woon sénégalais yi 94 milliards la Mamour Diallo mais lekk sàcc détourné alal la joo xamante ni xam naa fi mu nekk xam naa banque bi mu nekk te ba léegi indi lu ñu preuve dara du ci dëgg kooku mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mon cher mooy kii ne ñu nous sénégalais jàkkaarloog ñun ne ñu Mame Mbaye dafa sàcc vingt milliards Prodac maa ngeeg de rapport ñu porté ko plainte mu dem tribunal daal ne bi ñu ko convoqué mu ne preuve mu ngi ko amee. ci mu ngi ko amee ci internet bi. mu ngi ko amee ci internet bàyyi ma rek ma wax. non mais c'est ma posé question da may bàyyi ma wax. da ma posé question da nga ma bàyyi ma ma wax. ma dama ne damay wax kan mooy Ousmane Sonko damay wax ki ko wax ba pare. Mhm. daf la neexul li may wax neexu la c'est ça déglu ma <laughs> même bu la neexulee déglu ma. dama ne Ousmane Sonko mooy ki ne 29 milliards yi preuve yi mu ngi ko jëlee internet. d'accord Sonko mooy ki nga xam ne nii. Mhm. mais la justice bu Sénégal bu sa réew yow. moo ko condamné ci diffamation mhm. kooku nga ma wax ne moo indi ay chiffres tegal kooku nga may wax ne ay waxam ci lañ war a débat mhm. ma bëgg la xamal ne koo xam ne nii wax nga waxati waxati waxati waxati te amul lenn loo ñu indil preuve. Mhm. askan bi yëpp xam ne à chaque fois soo waxee ba ñépp gëm ko. mu doon coow. finalement. Mhm. dafay tàbbi comme lépp. kenn du ci am preuve te doo ñu indil benn preuve. Mhm. mais kooku noonu bu taxawee waxaat lii mu wax nii aujourd'hui Ouzin du ma jàpp lenn lu dul ne. mooy ka nga ah. xamante ne nii. mooy ka nga xamante ne nii. dafa soxla. baatu askan bi xam na fi situation bi toll six mois jox nañ ko réew mi moo ne woon bu ñëwee deux mois dina régler problème yi gis nañ ne amul lenn lu mu regle problème yi tar na sénégalais yi ñu ngi ci difficulté nit ñi lekkuñ nit ñi naanuñ amul kenn koo xam ne la nga mënoon démb la nga mënoon daaw mënaat nga ko comprendre ren. kooku noonu. Mhm. war a wax sénégalais yi. lan mooy solution yi. Mhm. te amul solution yi moo bëgg a ñëwaat di ah, divertir sénégalais yi maintenant maintenant mhm. maintenant chiffre yooyu noonu ngay wax. dafa am lu. dina ñëw lan ci chiffre yi bon temps de parole laay jéem a ah, man ak moom rek a fi nekk su ma waxee bu ma paree. mu wax temps bi mu war temps bi soo ko jëlee. moom mu maintenant dinaa ñëw ci chiffres yi après dinaa ñëw ci chiffres yi après. d'accord su may jëlaat parole. mais daal pour terminer. dama la bëgg xamal ne. Mhm. waxam. Mhm. kenn dooratu ci doomam fii Sénégal. nit la koo xamante ne nii mhm. tàmmal nañu wax pour lan pour euh, contre feu pour divertir nit ñi pour orienter xalaatu nit ñi ci leneen. lu dul li nga xam ne ni mooy essentiel kooku mooy Ousmane Sonko li tax nag mu yëkkati kàddu yooyu xam naa ko dañuy dem élection FMI bu ma jëlee parole après dinaa ci dellu si FMI dafa am lu mu wax mu doon lu leer nañ loolu ci lay préparer sénégalais yi voilà pourquoi mu yëkkati kàddu yooyu noonu d'accord alors euh, Ousmane Sonko am na sax ñuy wax ni carnage financier Ousmane Sonko nu disait euh, la dernière fois bon, si point de presse bi nee na Macky Sall a menti les Sénégalais waaw d'abord fi may commencer mooy celui qui parlait la dernière fois mhm. c'était le gouvernement du Sénégal à travers son premier ministre et certains membres et certains ministres donc c'était pas Ousmane Sonko le président de PASTEF euh, lu mu wax c'est très simple hein je pense sénégalais yëpp comprendre ko mais d'abord dama bëgg def benn constat boo xam ne di sant yàlla parce que euh, PASTEF bi mu ñëwee ci politique dafa luy xale yi di wax lé yéegal niveau yi c'est-à-dire dañoo commencé Sénégal di wax sur en fait di wax sur des sujets yoo xam ne bu njëkk ba xëy na c'était pour une élite maanaam ñu néew ñoo si doon waxtaan parce que dañoo ñëw Pastef di wax mbirum euh, ressources ressources yi ñu am di wax ci mbirum monnaie maanaam di wax si mbirum souveraineté mu nekk un débat boo xam ne nekkatul un débat d'élite mais dafa nekk un débat boo xam ne c'est un débat populaire c'est-à-dire tout en parle niveau ak fu Pastef jëlee fu fu qualité bon qualitatif bu politique sénégalaise en tout cas actualité politique def Sénégal grâce à Pastef ñu ñëw niveau du gouvernement aujourd'hui ñëpp xam nañ lan mooy PIB mm-hmm. lan mooy déficit budgétaire lan mooy euh, nu mu tudd dette bu nit am ameel mm-hmm. quand quand aujourd'hui boo regardez dans les réseaux sociaux xale yi naan man de sama 900000 cent mm-hmm. peut ça peut ça peut paraître drôle mais c'est une manière très pédagogique de d'expliquer aux gens lan lañ ameel ñi ñu ñu leb donc pour man loolu man man en tout cas loolu man man je fais de la politique je ne suis pas économiste man je suis ingénieur informaticien de formation mm-hmm. mais aujourd'hui je suis obligé de de dem di jàng yenn concepts yi en économie parce que je fais de la politique et parce que je veux être sur des plateaux pour défendre sama parti donc je me dis que Pastef moo doon même l'opportunité de mieux me former. parce que léegi nekkatul politicien boo xam da ngay ñëw rek di wax li nga wax xamoo ci dara. parce que ce président bu génnee day jox ay chiffres expliqués. toi si tu as besoin de défendre loolu tu es obligé d'aller te documenter. ay wax et au passage ma ciy remercier quelqu'un un membre du gouvernement. que j'écoute beaucoup que j'admire d'ailleurs mm-hmm. mooy mooy mooy mooy Abdourahmane Diouf et je trouve qu'il explique de manière très simple des concepts et de manière très pertinente le gouvernement et je pense un ministre exemplaire donc donc donc si si si wax si si pour mbir mi rek euh, gouvernement bi fi nekkoon euh, dafa doon nëbb sénégalais la situation économique dëkk bi mooy li ma tàmmoon di wax rek mooy lu xew ci jamono da ngay gis ñoo xam ne xëy na seen kër seen dépense sax matul mais il préfère jënd benn oto boo xam ne def ci essence compliqué na wala benn iPhone 14 xaw ma 15 je sais pas le dernier 16 xam nga pour paraître riche. ñun c'était le gouvernement qu'on avait cest a dire gouvernement boo xam ne. parce que tout simplement élection yaa ngi ñëw. Mhm. nga ne noo foog ma defar fi ay benn terre ñu ne noo Sénégal léegi terre moo fay daw. foog ma defar lii alors que yow sa population lekk ñu naanuñu. Mhm. mais nit bu lekkul bu naanul bu fajuwul. mais pour yow terre saf na ko. Mhm. c'est-à-dire dafa am ay besoins primaires lu nit soxla. mooy lekk naan faju jàng. mais ñi fi nekkoon ñoom ils étaient beaucoup par les futures élections.